الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون نجلن لدينك لدينك سنبوب ragal sunu borom tabaraka wa taala mbokk jullit yi kenn ku nekk xam na ne jamono ji nu nekk jamono ju bari ay fitna la jamono ju bari ay wax la jamono ju la communication àgg foo xam ne bu jéggi dayo la foo xam ne ni mën a indee jariñ noonu la mën a taale fitna nu aajowoo jamono ñun toll ju nekk su fitna di bëgg a taxaw nu del siwaat xoolaat suñu bopp xoolaat suñu bopp ci nun mooy ñan xam suñu démb ak fan lan teg suñu tànk waaye nu xam suñu bopp ci mën xëj bii nu jaar muy yoon wi nga xam ne moom la nu nu jaar ci mbir bi jàng ak di ko jàngale ak di ko jëfe yoon ñu fàttaleen ko لول موتاخ سون خطبه طيبي جيمتي منهج الاصلاح والتغيير بوك جولي جي سون ريو مي الاسلام ياغ رافي لول الاسلام ميغي في دوجي 11 سيكل مانام سي ات ما جيك صاح سي 11 سيكل بروم سام فامو استوار بو ماك كوني هادي روجي ادريس ci téeree bu mu tuddee dawla sinhaajiya taarixu ifriqiya muy histoire Afrique ci dixième siècle bi ba ci douzième siècle ba nee na ki jëkk dugg ci lislaam ci suñ gox yi muy ca Fuuta muy benn buur bi ñu wax waar jaabi mu ngi dugg ci lislaam def benn contrat ak ñi nga xam ne ñoom lañ doon tudde almurabituun ñu nekkoon benn association bu mag boo xam ne ay wootekat lañu woon ci lislaam sosoo woon ca Maroc tasaaroo ba ñëw ci Mauritanie mu ne ci le 15 octobre ci 1001 junni at ak benn ci fukki fan ak juróom ci weeru octobre ci la waar jaabi daje ak muraabitoon yooyu ñu def benn contrat boo xam ne moom ci la tuube dugg ci lislaam aw askanam dugg ci lislaam kon mën nañu wax ne lislaam ci jamono jooju la tàbbi Sénégal kon ñu xam ne lislaam moo fi jëkk tariqa tariqa bi gën a yàgg ci tariqa yu agsi ci suñu gox yi yépp du ma wax Sénégal rek waaye Sénégal yi li ko war ci ay réew tariqa boobu mooy tariqatu qaadiriya kenn ku nekk xam na ni Cheikh Abdul Qadir mi sos tariqa bi mi ngi gane àdduna 1077 kon lislaam dugg na fii ba am lu ëpp juróom-ñaar fukki at mu door a gane aduna moom génn aduna 1166 kon bi muy génn àdduna tariixaam bi àggagul sax Tunis ni ko benn borom xam-xamu Tunis gëstukat bu mag bu ñuy wax at tililil ojayli ci téeréem boo xam ne mi ngi ko tuddee turuqu suufiya wal istixmaaru faransi mu ne tariqay soufisme ak colonial bu français bi noonu la téere bi tudd kooku nee na bi cheikh abdul di génn àdduna tariqaam bi ak seegul tunus kon nag maroc moom taxul ñuy wax mauritanie it taxul ñuy wax sénégal it taxul ñuy wax nga xam ne yi ñoo ko fi indi cheikh ahmad tidiane nga xam ne moo ñëw gannaawam moom diggante génn àdduna goog cheikh abdul qadir aku gane àddunaam mom mat na juróom benn siècle kon nga xam ne booba tarixa moom taxut wax kon loolu sénégal li nga ciy jële mooy nekk nañ ci dund seen islaam lu ëpp ñaari téeméeri at ba jege ñetti at sax te fekk nag sénégalais yi booba ci benn lu dul di jàngal Islam di ko jëfe sun maam yi nga xam ne tariqa yooyu bi ñëwee ñoom lañ fi fekk te fekk ñi nekkoon ci lislaam yu amul woon tariqa bi dikkee dañ leen a gaaral tariqa yëgal leen lii kat li ko tax a jóg mooy réforme maanaam defaraat xool lislaam bi lu ci yàqu woon ñu defaraat ko xool lu ci manqué woon ñu jéem ko mottali bi ñu leen waxee loolu sun maam yooyu nangu ko comme niñ nangoo woon lislaam bi jëkk tarixa yooyu ñëw fekk fi dënn yu yaatu donte ay araba ko sos tarixa yépp ay araba leen sos ci yi ñëw ci jamono yooya ñu ubbi leen seeni dënn ba mu yaatu nangul leen tarixa yooyu comme nañ nangoo woon lislaam yu njëkk ja ba mu ñëwee ja xam ne tarixa amu ci woon ba noppi liggéey ci biir tarixa yooyu liggéey yoo xam ne sax jàpp naa ne jëmmi arab yi ci boppam nga xam ne ci ñoom la jóge woon coono bu mel noonu defuñu ko ci waaye nag ànd ak loolu lépp mandarga mi gënoon a fés mooy yaatu dënn valeur bi nga xam ne moo nekkoon traditionnel ci ñoom mooy dënn bu yaatu moo tax ku mas a xool ba gis ne bi nga nekkoon jàpp nga ne balee ko gën da ngay daal di dem ca booba te dara du xew néew na ci ku mën a lim ci ay maamam ñett wala ñeenti maam te doo gis ne sa maam yooyu bokkuñu woon ci leen luñ nekk kii taxaw di wax ak yéen maamam ji jur baayam ci tarikatu xaadir ci la nekkoon baayam bi ko jur yaru ca tarika boobee bi mu gisee beneen tarika ñëw muy tarikal muridiya dafa bàyyi tarika xaadir bi dem ca tarikal muridiya ànd ak baayam bi dund ca loola kon yaatu dënn boobu moo fa nekkoon kenn ku ne ci yéen it boo wàññee sa ñaari maam jëm ñeent boo dikkee loolu ngay gis loola taxul woon ñaari famille taxaw di xeex wala ñuy saagaante taxul woon it ak kër waa kër ga di xuloo wala ñuy xasante waaye teewul dañoo benn woon yëg ne ci lislaam lañ nekk ñoom ñëpp loolu moo doonoon li gën a yaatu ànd ak ne histoire bindal nañu ay xeex yoo xam ne am na ci diggante ay tarixa yoo xam ne ay deret sax tuuru na ca waaye la ko andi woon it mooy ay nit ñu jàpp ne dañoo war a mën a forcer ñeneen pour ñu jóge ca lañ nekkoon di fekk si leen loolu koo ko fekk ku ne xamal ne mën naa jur fitna loola nag doonut woon la gën a not ci ñoom maanaam loolu lu joox si la woon maanaam nit di xeex keneen ne ko tey nga dikk ci sama tarixa loolu lu joox si la woon waaye doonul woon li gënoon a yaatu ci seenu dund ñoom loolu lépp nag suñ ko tegee fee muy maam yi ci ban tarixa lañ nekkoon ak ban mën lañ nekkoon ñoom ñëpp dañuy xool gis ne am na lenn luñ bokkale woon muy maam yi yàggee nag laa wax waxuma ñu jege ñii moo di ñoom ñëpp àndoon nañ jubloo jàppale lislaam ak dëgëral ko ak tasaare ko ci kem moyens yi nga xam ne moom la leen yàlla joxoon ci seen jamono ci kem moyens yi leen sunu borom joxoon ci seen jamono ak ci kem lim leen joxoon ci ay pexe yu jëm ci wàllu xam-xam ak ci wàllu méthode woote loola moo tax ñu garde alquranul karim ba rabbul jaarale ko ci daara yu ñu doon taxawal xam-xamu sharia bi ñu wutal ko ay daara yoo xam ne ko bëgg a jàng sharia ca nga dem jàng ko boole koog di woote ba lu bari ci buur yi nga xam ne ñoom lañ dajeloon ci jamono ñi nangul leen seen woote boobee ba ay nguuri lislaam sax taxaw ci biir réew mi yoo xam ne sharia lay attewoo tribunaux yu taxaw di attewoo sharia ca Fuuta ca Kajoor ca Njaago ay attekat yu mag siiw ba seeni tur ñu xam leen ba koñ ci tudd alqaadi diw sàngam la ñuy wax maanaam attekat diw sàngam loola ca lañ continuer di ca dundu bana na colonialiste ba dikkee bi mu dikkee xeex loolu fexe ba suufeel ko lal fa kaaraangeem soppi lu bari ca la nga xam ne moom la julli de doon dund fi civilisation boo xam dafa ci kaw ci wet gi nga dafa ci kon li mbokk jullit yi mooy lenn ci histoire sunum réew ci lislaam nun nag li jaadu ci nun ci manhaj bi ñu war a tegu nun bu ndee woote jëme ci lislaam nan xam ne lislaam daf ñuy digal ne sunu liggéey li war a doon mooy jàngale diine ji ak leeral ko lépp loo xam ne lu nu ca man la sun bépp coono boo xam ne def nañ ko ci jàngale ak woote ak leeral nañ xam ne loolu continuité la ci li nga xam ne sun magi démb ñi ni sun maam yi sun paa moom lañ tàmbali woon ba yam ca fañ mën a yam loola la ñuy continuer ngir di ko defar waaye nag ak defar koo xam ne dafay ànd ak lépp loo xam ne luñ gis ne lu manqué la ñu mottali ko lépp luñ gis ne njuumte la woon ñu jéem koo defaraat lépp luñ gis ne lii dafa ràppoon ñu jéem koo yeesalaat noonu nag lay demee kon duñ mën a nangu ay nit jóge fële di wax ne mag ñi nun noo leen moom suñuy mag lañ yow boo jógee woote ci pas-pas ñu ne kooka nun lay xas boo ne yéen doomu aadama yi wattandiku leen bokkaale am ku jóg taxaw ne loolu noonu lañ ci jublu boo ne yéen doomu aadama yi fonk leen julli am ay kuréel yu jóg taxaw ne loolu noo ko moom bëgg a wax ne nag nun ñiy wax li nun noo moom mag ñi noo ànd ak ñoom loolu nun duñ ko nangu li ñuy nangu mooy mag ñi ci siraatul mustaqim lañ nekkoon di ci woote di ca def lañ ca man ba fañ ca mën a yem nu ñëw fañ yemoon nu jéem faa teg suñ tànk noonu ngir jéem a continuer ku taxaw ca àll ba nag defoo waxoo jéem nga jëm kanam bëggunoo génne ci ñooñee nag dañuy gëm ne nun ñooñee suñ patrimoine lañ waaye du caagi ñoom ñoo ko moom kon mën xëj boobu la ñuy jaar ku taxaw ci suñ kanam nag di wax wax joo xam ne ñu ñaaw la suñ tont li mu war a doon mooy wa ida xaatabahum aljaahiluuna qaalu salaama ñi nga xam ne xamul suñ la waxee wax ju ñaaw yow waxal jàmm suñ la waxee wax ju dul noona bu kenn dégg ci saw làmmiñ yow mukk wax joo xam ne ju dul noona la te woote bi dafa war a ànd ak ad-da'watu ila al-haqq woote jëme ci dëgg waaye mu ànd ak ar-rahmatu bil xalq boole gi yërëm bindeef yi nag woote jëme ci dëgg ci kaw li jaadu ci tawxiid faaw ñu jottali ko ba nit ñi xam ko li jaadu ci jaamu yàlla yi dëppoog sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faaw ñu jottali ko ba mu àgg ci nit ñi li jaadu ci jikko yu rafet yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko yar ca saxaaba ya faaw ñu jottali ko ba mu ñëw ci biir nit waaye loola nag mu ànd ak yërmaande ñi ngay waxal yoo xam ne saa boo leen di xool da ngay fàttaliku li sunu borom tabaraka wa taala wax ne kadalika kuntum min qablu fa manna allahu alaykum ne leen kat ñii nga taxaw di leen woo ak di leen jàngal noona nga meloon démb yàlla defal la xéewal nga mel nii tey loolu jamono yoo ko dee xalaat doo gis nit ku taxaw ci sa kanam am ak lu wala nga jàpp ne daa nekk ci lu dëngul nga jàpp ne kooku bëgg a bon moo tax mu bon waaye fekk ne daa nekk ci nattu boo xam ne yow jaaroon nga ca nga bëgg koo dimbali bëgg a jàpp ci loxoom ndax mu génn ci natt boobee ba ñëw am na ay kuréel yoo xam ne tey su na nësee wala njaxas am wala fitna am wala muy bëgg am kuréel yooyu seen participation mooy indi lu mel noonu kuréel bi ci jëkk moo di nooni lislaam yi nga xam ne xeex lislaam ci boppam moo leen tax a jóg ñooñu buñ jógee jaaruwaay bi gën a gaaw ci ñoom mooy jaaruwaale def ay pexe ba tàqalikoo yi nekkoon ci diggante jullit yi nga xam ne ñi ngi ko doon sooxaale di ko dund kenn ku nekk di dund loola ñi def ko taal fitna boo xam ne dañ koy ëf taal ko ba yàq diggante seen diggante ay fitna tàkk foofa su ko defee ñoom seeni intérêt ca loolu lay jóge loolu lu mat a wattandiku la ay rapport yu doy waar mi ngi am ci kaw suuf tey yoo xam ne noonu lislaam ñoo koy def ci ay réew noonu ñu muslu ci yàlla mu agsi ci suñuy réew bu leen réere mbir ne am na réewum lislaam boo xam ne dem nañ ba àgg ci taal ay xabru ñi jiiñ ko ahlu sunna ne ñoom ñoo ko def ngir bëgg a yàq seen diggante ak ña nga xam ne ñoo ko nekkoon réew moomee biñ demee seenu dal ak seenu teey def seeni enquête ba gis gis nañ ne yeneeni service yu làpp yu nëpp yu nekk ca gannaaw ñoo defoon njaaxum nga ngir bëgg a yàq diggante ñii ak ñii am na réew yoo xam ne diggante église ay nit a dem taal yàq ngir bëgg ñu ne jullit yi ñoo ko def bi ay nit dikkee def enquête gis nañ ni ñu làqu ca gannaaw féete wuñ foofa ñoo ko def ngir bëgg a yàq diggante yooyu fitna nag bu taxawee bay bëgg a toll foofu laaj na képp ku nekk responsable ak foo mën a féete ci loo mën a bokk nga yëkkati sa kàddu artu wax nit ñi ne yéen a ngi laal foo xam ne du foofa yéen a ngi waxee foo xam ne du foofa faaw ñu ànd ak dal dellu ci li nu lislaam jàngal muy njub ak teey ak wut jàmm ba nga xam ne biisu jaare ci yow taal fitna ndax am na ñoo xam ne fitna ju tàkk ji seen intérêt ca la nekk ñaareelu kuréel bi mooy ay mbootaay yu ndaw yu taxaw tey yoo xam ne dañoo jàpp ne ngir ñoom ñu mën a dund faw problème daa war a am ci diggante kuréeli diine yi su problème boobu amee nag ñu wax ne nun noo jóg ngir défendre mag ñi parce que mag ñi noonu sunuy mag lan kenn du leen sàggane loola mooy suñ liggéey ci kaw suuf ñooña loolu dana leen jaral effort buñ mën a def ba fu ay wax yu ñaaw masa suulu ak lu mu yàgg-yàgg daañu fexe ba sulli ji ko génne ko daal di cay bég lool génne ko solal ko malaan mu yees ba ku ko gis defe ne lii tey lañ ko wax wala démb lañ ko wax saa boo xamee ne topp nañ nit ci ñi bëggoon a jaxase nit ñi xool gis ne kii kat ba mu tàmbalee wax ba tey xool nañ gis ne mët nañ bi muy waxe wala yoon bi muy waxe wenn la kenn mënta génne ci ay waxam loo xam ne luñ ko mën a jaxasee nit ñi la dañuy am lu leen metti lool mel ni koo xam ne da nga rëbbi woon sooy loolu musiba la kon kuréel yu mel noonu jàpp nañ ne seenu ci loolu lay tegu yëngatu yi ñuy yëngatu yépp nag ñu ngi koy xam ñu ngi dem ci ay autorité ñu di leen jox ay xaalis di leen wan ne mag ñi lañ fi nekkal nooy taxawe lii nooy defi lii nooy defi lii wane ne kilifa diine yi fi nekk yépp ñoo nu yabal no bokk nekk ci loolu su ko defee ci loolu lañ leen di joxe respect jàpp ne ñoom kilifa diine yi fi nekk ñoo leen yebal fekk ñoo créé seen association di wut fuñ teg seen tànk ndax sunu réew mi dafa doon réew moo xam ne nit ñi daanaka ndaw ñi ñàkk gi ñu ñàkk luñ liggéeyee moo tax jàpp nañ ne bunt boo fëgg dara génne fa rek dañu daal di jàpp ne loola moom kon bunt la boo xam ne loo ko mën a gën a garaawal rek ba dara mën a dugg day daal di baax lu bare bare bare ci béréb yi nga xam ne ña nga fay dem ñi ngi koy xam lañ leen koy jox itam ñi ngi xam ne nangam lañ leen ko jox ci geneen anam ji yeneeni ndaw yoo xam ne ay ndaw lañ yoo xam ne seen xam-xam ci daawa gàtt na lool seenu tàngoor metti na lool ci cadre expérience ci biir daawa taxawaay bu gàtt gàtt lañ ca am booleeg nag nangoo jël risque bu nekk nag ci wàllu daawa yaakaar ne risque ci biir taxaw mooy ak njàmbaar mooy volontaire dem ba mën a àgg sax sànni ay kàddu ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir toolu liggéey bi wax ne ñooñu dañoo ragal loolu moo tax daawa bi doxul buñ jàkkaarloo ñi nga xam ne ñoom lañ jooyool ay kàddu yu ñaaw wax yu bon ay jikko yu salte di ko won ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkaar lool war leen a woo ñu dikk ci lislaam ba mën a àgg ci tudd ay turi kilifa yu mag yoo xam ne ñooy ñooñu ma doon tudd di wax ne démb ci liggéeyu lislaam lañ nekkoon ba génn àdduna lañ nekkoon war a doon loo xam ne dafa war a continuer nga mën leen a tudd wax ci ñoom wax yu ñaaw ñaaw loolu nun duñ ko nangu du mën xëcc du nu nangu nit jóge fële créé sas kuréel ne nu yéen yéen i nooni mag ñi nun noo fi nekkal mag ñi waaye du nangu itam ñoo xam ne dañuy wax ne danoo féete nun bëgg a féttigéewu mag ñooñu di leen saaga wala ñu di leen xas li ñuy woote kay mooy siraatul mustaqim bi ñu nekk di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dëgëral ñu ci nu war ci dund bëgg ko cee fekk ci mooy fépp foo xam ne njuumte nekkoon na fa ci biir diine ci suñ kem kattan loolu ca mën a nu jubbanti ko fu aw yu nekk woo xam ne mën nañ koo tegtal jullit yi ñu leen ko xam aju ci pas-pas wala dafa aju ci jaamu yàlla wala dafa aju ci ay jikko waaye nag loolu mu ànd ak làmmiñ mu ànd akuk dal jikko yoo xam ne jikko yu teey la loolu mooy li nga xam ne moom la sant bokk na ci li gën a mbir mi te gën tax képp kuy xalaat di analyser mu war laa indil njàqare moo di réseaux sociaux yi nga xam ne ñi ngi koy jëfandikoo di ubbi ay groupe yoo xam ne ñeen ñi dañuy askanoo ci salafiya ñeneen ñi di askanoo ci yi waaye ci biir groupe yooyu la ci gën a metti ñiy boole ñoo xam ne ñee fee lañ bokk ñii fee lañ bokk te doonuñu ñu jàng ba xam Jalop nuñ koy defee nan lañ wakan a Islam, ci lislaam nan lañ ci war a woote su fekkee ne ay awaam lañ jël maanaam nit ñoo xam ne ñu jàngul lañ ñu ne kii ca kuréel bële la féete ci nga boole leen ñoom ñaar kenn ku nekk di enregistré say audio di dugal kii tontu dugal kii tontu dugal suñ noppee kenn ku ne la sa morom doon dugal nga tànn la ci gën a ñaaw gën caa salte nga génne ko tasaare ko ma ne loolu du jur fitna du jur jàmm xet na lay jur mbokki jullit yi dialogue ci lislaam am na waaye dafa am niveau bu muy nekk boroom xam-xam yi ci seen jëmmi bopp ñoo mën a waxante ci lislaam ci mbind wala ci waxante ak tontonte loolu mooy al mujaadalatu billati hiya ahsan ñi nga xam ne dañoo jàng ba toll ci niveau boobu ñoo mën lool waaye nit ñoo xam ne seen dënn rek lañ yor ak seen bëgg-bëgg ñu xam ne mbirum lislaam ak mbirum diine ju mën a doon sax ak nit ka nam koy gëme ak na ca dëndam di tànge bokkul ak nga ne mbër mii laa faral kii de mbër mee laa faral ndax du la jaral nag yenn yi waaye lislaam moom lay mbir moo xam ne ci xol ba lay àgg diine dafay doon loo xam ne ci xol lay àgg kon ña ca mën a maîtriser seen bopp man caa waxante mooy ñi jàng ba xam xam la ñuy teg seen tànk su nit waxee ñu xam nañu lay tontoo ndànk ba li nga wax ba ca njuumte nekkee ñu wan ne njuumte kat nekk na ci li tax mu nekk ci mooy lii ak lii ak loola ñi jàng ñoo ko mën waaye ñi jàngul mënuñu ko ñoom nag jël nañ ay groupe yoo xam ne mbooloo mu dul jeex lañ ca boole ci ñu dul jàng ñii ngi xaste ñii ngi saagaante boo saagaa kële kële saaga kum jàpp ne moom itam sa kilif la loolu yépp ay juumte la yoo xam ne ñu ngi ciy dund ndax boo seetloo di déglu yi ñuy wax ñoom da ngay jàpp ne ñii waxante sax xamantewuñ wuñ ñoom waxuma xamante ci ay tur ak ay sant ak fuñ dëkk ak yooyu waaye xamuñu sax luy seen pas jàpp nañ ne kenn ku ci ne dangaa yor làng goo xam ne dangaa yor saw mag ñoo xam ne suñ leen saagaa nga mer loolu gis-gis bu suufee la dëgg la geneen làng ga amaana loolu lay dund waaye kii dund sunna te xam ko mépp mag moo xam ne ci diine la nekk ku ko saaga ñu mer ku ko saaga mu mer ak mag mu mën a doon nag ak foo mën a féete muy magam ahlu sunna muy mag moo xam ne da doon jéem a góorgóorlu am ay rëcc rëcc yoo xam ne gaar na ko moo xam ci pas la moo xam ci Euh, ay jaamu yàllaam la moo xam ci dundinam la ginnaaw lislaam la doon dund la doon dund di ca woote di ca yëngu ay nit di ko ca topp ba mu génn ci àdduna kooku ab cëram ci askan wi du mooy taxaw mukk ñi di ko saaga loolu euh, doo bàyyi kenn mu won la ne man maa féete fële di la xasal say mag su ko defee yow itam nga dima xasal samay mag déedéet loolu ahlu sunna wal jamaa loolu waru jëkkoon nangul kenn euh, lislaam nag ne ni mu doone diine jàmm noonu la doon diine joo xam ne dafa tegu ci ay régal yoo xam ne yu dëgër la dafa tegu ci ay base ak ay piliers yoo xam ne yu dëgër la lislaam daf ñu jàngal ne bala ngaa toog ci mbooloo di jàngalee ko yar na fekk jàngal la yar la na fekk ñu jàngal la yar la nga door di jàngale di yar lislaam daf ñu jàngal ne ñi ngay woo faaw nga bàyyi leen xel am na ñoo xam ne ci seen woote seen bopp rek lañu bàyyi xel man daal lii wax ko moo ma war wax naa ko lii def ko moo ma war def naa ko jeex na sama yoon nekkul ci nit ñi nuñ koy déggee nuñ mel ak luñ gëm ak kooku njuumte la ci do daaw lislaam daf noo jàngal ñi ngay waxal nga xool fa ñu toll lislaam daf ñoo jàngal jëf yi ngay jëf ak wax jii ngay wax nga xool ba xam lan moo ci mën a juddoo loolu moom la ñu tudde fiqhul maalaat su ma waxee lii ndax jàmm lay jur ndax dana soppi lu bon indi lu baax wala dafa nar a indi musiba wala daf fee nar a jële sax lu baax indi lu bon su fekkee loola day jooja wax bañ koo wax wax moo gën su fekkee jëf la bañ koo jëf moo gën donte sax digle lu baax la nag ak tere lu bon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci biir sàppes jullit yi ay munaafiqoon a ngi ci woon te naafiq lu garaaw la loo xam ne mooy nit ku wax ne daa yàlla gëmu ko wax ne daa gëm yonent bi te gëmu ko ba noppi nekk ci biir julli gi nag di yàq lu mu mën a yàq-yàq yonent bi xam leen xam seeni tur ñu nekk ci biiram suñuy julli ñu nekk ci seen biir di julli suñuy génn di jihaati fi ñu ànd ak ñoom boole di yàq lu mën a yàq yonent boobu alayhi salaatu salaam benn bis am naafiq def jëf ju rëy Omar ibn ne ko bàyyi ma ma rey ko lim ko tontu mooy bëgguma nit ña ñuy dégg ñu ne muhammad dafay rey ñi mu àndal bëgguma ñi may dégg day ñu naan muhammad dafay rey ñi mu àndal xam nga loolu mooy garde secret biir kuréel bi ña ca ñoom xamuñu kii munaafiq la ak du munaafiq diw daal ca ña àndoon ak moom la xëy na rey ko ñu ne kon di kooku ku ànd ak moom mu rey la loola bu tasaaroo ci biir askan yi ku dégg loolu dangay ngay daw lislaam jikkoo ju rafet jooju nga xam ne moom la doon dund ak ñoom wootekat yi loolu luñ mat luñ war a bàyyi xel la benn bis nit ka doon nett nga xam ne borom bi tabaraka wa taala ci e, dogalam benn waay boo xam ne ci xeet yi jiitu woon la dafa gëleemam daf koo réer te ci manding la nekk ab àll boo xam mu bég daal di ne yow yàlla yaay sama jaam man maay sa borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nettalee génn na diine waaye daf ne axtaa min shiddatil farax nee na mbég mu rëy ma moo tax mu juum daa bëggoon wax ne yàlla maa ngi lay seedeel ne maay sama jaam yow yaay sama borom faf maa ngi lay seedeel ne yow yaay sama jaam man maay sa borom xam nga ne loolu kéefër la waaye yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu dafa juum de dafa juum ndax mbir mu metti ma moo tax kon du caagi ni baat bu jóge ci làmmiñu nit rek nga daal ko koy attee xoolal situation bi muy dund xeeti laabiir yooyu ak seetlu yu yooyu yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom doon dund ak saxaaba yi moom la doon dund ak xeet wi ba kum mën a dogal ngànt mu dogal ngànt ci xeetu daawaam loolu moo tax woote boobu doon woote boo xam ne dara mënta taxaw ci kanamam nit da koy bañ sax wala mu di ko dégg waaye bu ñëwee ba taxaw ci kanamam rek fekk mu yor ci melokaan ak ci lewetaay ak yërmaande loo xam ne séentu wu ko woon loolu moo koy tey mu dugg ci lislaam ji loolu mooy melokaanu jullit mooy melokaanu wootekat mbokki ñu ne mbokki jullit yi gannaaw loolu lépp jàll danañ ballalu lenn ci ay régal yoo xam ne dañ koy jële ci wax ji ñu doon wax pour mu doon ab yóbbal ci képp koo xam ne dangaa wax ne dangaa jóg di woote ci yoonu yàlla benn iyaaka wal mujaadala illa billati hi ahsan wattandikul wàqante ci wàllu diine lu dul ca nam gën a rafet loolu alquran mënu ko jàngale mënu ko jàngal nee na ahlul kitab wala tujaadilu ahlal illa billati hi ahsan ñi nekkul ci diine sax ñi nekkul ci diine su ngeen di waxtante ñoom ci mbirum diine bu kenn dégg ci seeni làmmiñ lu dul rafet kon nag ki bokk ak yow nekk ci biir diine islaam ak kuréel bu mu mën a nekk bu mu tax saw làmmiñ dara mën ci génne lu ñaaw ñaar iyaaka wal xudua lil istifzazat wattandikul nit xëcc la maanaam gëf la di la gëf ba yóbbu la ci loo xam ne yow lii yéene woo ko woon wax te du sa jikko waaye waa ji moo la wax lu naqari tax nga wax ko wala moo la def lu la naqari moo tax nga def jëf jooju loolu da lay yàqal borom bi tabaraka wa taala daana ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax ne na nga ñi nga xam ne dañ lay xëcc nga def lu dul noona wala nga wax lu dul noona am na ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey bëgg laa dugal ci lu mel mën nañ laa saaga mën nañ laa xas mën nañ laa tuubaat ci loo defut ngir bëgg nga def benn réaction boo xam ne yow du sa jikko sab der yàqoo ci nag ba faaw kon loolu wattani ko iyaaka wal intisaara li nafsi badalal mabaadi wattandikul ñu yóbbu la ci situation boo xam ne da ngay mujj sa bopp ngay défendre fàtte principe yi nga xam ne moom nga doon woote jullit bi jógul ngir défendre boppam ku koy saaga na ko saaga ku koy xas na ko xas ku koy tuumaal na ko tuumaal su fekkee ne lañ koy saaga wala ñu ko koy xase wala ñu ko koy tuumaal dara du ci dëgg na sant yàlla ndax kookaam koy jëlal ay bàkkaar wala mi ngi koy sottil ay tuyaaba ci balance kon loola warta doon loo xam ne lu koy naqari lay doon waaye nag principe bi mu gëm nag muy wàllu pas-pasam loolu mooy loo xam ne ku ko laal mu tontu la nag ku wax lu ci jëm mu ne la déedéet loola du noonu nii la du tax nag mu saagaante wala mu xaste su say wax ñaawee yow mi koy songit moom bu lay tontu tontu lu rafet la lay tontu waaye nag day tegu ci kaw euh, lay yu wér day tegu ci kaw dëgg إياك والاندرار وراء العواطف واتنكو سانتي ما يدم خجلة بتخل جونغا وخلو ورد وخ ولا نقدر بلوخ نلو ورد وخلا إياك وحب الظهور فإنه يقسم الظهور واتنكو بدو فين بدو فين بدو سيو bari na ko loru wala mu yàqule ci diini ji fekk bëgg a siiw moo ko ko teg bi ci tegu la taxtab yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko dénkaane woon nee na bul mer bul mer waa ji def ne ko dénk ma mu ne ko bul mer mu demaat dikk ko dénk mu ne bul mer ba muy ñetti yoon kon boo xasee mer rek mën ngaa def loo bëggut a def wala nga wax loo bëggut wax ba ca tegu farriq bayna al qawli wa qaa'ili wal fi'li wa faa'ili jëf ji day mën naa doon jëf joo xam ne njuumte la wax ji mën naa doon wax joo xam ne njuumte la waaye booy atte wax ja di wax ne ñii wax njuumte la dangay ngay wattandikuloo nit ñi ñu topp wax joojee waaye bul ko def mukk mu doon atte boo xam ne da nga koy waa ji wax wax ji wax ji mën naa doon njuumte doon lu baaxut sax ci diine loo xam ne dañ ko war a defaraat dañ ko faa war a jële waaye ki fekk ka ko wax amoon na ca ngànt moom ndax amaana xamul woon leneen loolu la defoon ne noonu la ma wax loolu wala amaana bi mu ko wax dafa juum wala amaana bi mu ko wax dañ ko cee forcé mu wax ko yooyu yépp mën na ko gaar kon yow jamono yi ngay jubbanti jubbantil wax ja waaye bul jël nag lu bon lépp sotti ko ci kaw ka nga xam wax ja ci ci moom la génne bu dee jëf itam min tabiati al-bashar suratu nisyan walxaajati ila tajdid boo gisee diine ñuy wax ne dafa aja continuité ak ak di beesalaat moo di doomu dafa gaaw fàtte nit ki yoroon ay nitam yar leen ci njub yar leen ci mbaax mën naa génn rek ñu tàmbalee jànt su fekkee ne amut kuy yeesalaat wala kuy jubbanti bu yàggee lislaam ji dootuñu xam lislaam li lu mu doon loolu moo tax yeesal nag munta ñàkk doomu aadama dafa gaaw fàtte doomu aadama réer daf koo yomb fétal it daf koo romb yomb mooy jàpp ne fële moo gën baax xaaral ma jaari ci yoon wala mu gën yoon nga jaaroon loolu dafa yomb faawu mu am ñoo xam ne dañuy taxaw nag di defaraat faw mu am ñu taxaw di yeesalaat su loolu amul rek diine ji dafay eh, taxaw wala mu mujj soppi ko doon leneen loo xam ne kenn xamatul lu mu doon laysa min lawasimi tajdid fi l islam hatmu kulli ni defaraat mooy màbb la fa nekkoon lépp taxaw yépp moo xam ci biir kuréel yi diine yi la moo xam ci mbooloo yi la moo xam fu mu mën a doon boo dikkee da nga cee fekk loo xam ne noonu la fekk ca loo xam ne ay njuum ca la su ko defee bul boole lépp màbb sa xam-xam ak sa xereñe warna naa àgg ci la fa baax mu wóor na lii lu dëppoog alquran ak sunna la nga nangu ne loolu kat dëppoon ak alquran ak sunna la ca dëppoowut ak alquran ak sunna la nga ne lee moom bokk ci alquran ak sunna kon loolu nañ ko dégagé teg ko fee waaye du caa gi nii lu jóg la dañuy màbb lépp war a tàmbaliwaat ci zéro l'islam du noonu ah xanaa béréb boo xam dara nekk fa nag lu baax su fekkee dara lu baax lu ko nekku fa nag su boobaa loolaa ko sës waaye defe naa ni loola ci biir jullit yi lu mel noonu amul euh, wala bariwul laa tujaadil al awaam wala sufaha bul weranteeg ku jàngul wala ku maîtriser wul boppam ku amul xel ñooñu wattu la werante ak ñoom téyel saw làmmiñ ci ñoom ba ca tegu mooy xawluka imma laka aw aleyka bépp baat bu jóge ci sa làmmiñ bi nga wax ko benn baat bu ñu lay bindale tuyaaba la wala bu ñu lay bindale bàkkaar loolu nag ku ko bàyyi xel bala nga génne genn kàddu da ko bàyyi xel bu baax a baax maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wax jum wax ju ne am nañu den rek ñoom ñoo xam ne yàkkamte nañ baat ba génn bañ bind ko bu dee lu baaxoo kële daal di bind bu dee lu bonoo ka daal di bind kon loolu ku ko sàmm say wax mën naa néew waaye it doo لدول وقت يوخمنا وقت يباخلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كو خمني قمنا يالا قمنا الآخرة نيو يرنك بي عليه الصلاة والسلام نينا بوي وخ لغي وخ ندون لباخ ندون جام ولا أي سلام بو خمت لباخ لو وخ نينا نبي بچه مجموعي الظلم عاقبته وخيمة توين باخوتس tooñ ak mujjam baaxul yonente bi sallallahu wa sallam nee na az-zulmu zulumaatun yawmal qiyaama nee na tooñ ay lëndam lay doon ëllëg ci bàmmeel waxaat na ne ki nga xam ne danga koo tooñ mu tàllal ay loxoom ñaan yàlla la du wàcce ay loxoom lu dul lim la ñaan yàlla day dal ci sa sa kaw kon tooñ ci wax ak ci jëf ak ci lépp loo xam ne xeetu tooñ la jullit bi daf ko war a wattandiku kon régal yooyu mooy yoo xam ne su ko jullit bi sàmmee jëfe ko ci biir wooteem ci lislaam dana mën a mucc ci fitna yi nga xam ne moom la ñuy dund ci suñu jamono kon day jaadu nañu góorgóorluwaat bu baax delluwaat muraajaawaat bu baax nafaraat mën bi nga xam ne moom la ñuy doxee moom la ñuy jëflante ci diggante doomu aadama yi ba mën a jot li diine ci nam gën a rafete te fitna du am lu dul loolu nag rek fitna mooy am te su amee nag amul kenn ku ciy jariñu lor lay doon ci kaw ñépp comme ni ngeen koy déggee ci yeneen réew yi ci des ñu dellu si xam ne ahlu sunna wal jamaa muy woote bi ñuy woo kilifa yu baax yépp yi góorgóorlu ci diine lislaam kenn ku ci nekk fa nga tollu alxuraan ak sunna foofa lañ la toll gëm nañ ne gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keneen dikkaatu fi koo xam ne daa nekk maasum nga xam ne lu mu def lu nekk des ko war a jël lu mu bàyyi lu nekk des ko war a loolu amaatu ñu gëm itam ne diine ji diine yërmande la joo xam ne mbon tax koo jóg ibnu taymiya mi nga xam ne boo ko tuddee ñu jàpp ne mooy koo xam ne ñu ko tuddee yéen da ngeen di jóg taxaw yamu juum moom ci jëmmi boppam kenn du ko ci topp ibnul qayim mi dib taalibeem ñii wax ibnul qayim day wax ne amul benn kuréel ci kaw suuf lu dul lu baax nga ci moom lu bon nga ci moom kon ki am tawfiq mooy mu ne ka tànn yu baax ya nekk ci kuréel yu boole yu baax yooyu mooy yi dëppoo alxuraan ak sunna mu ne ki tànn yooyu boole ko mooy ki yàlla may tawfiq ci kaw suuf bokk na ci yërmaande yooyu ñuy wax mooy ibnu taymiya bi mu dajeeg waa tatar bi mu demee ba àgg ci war a signé ñoom ay accord yoo xam ne dañoo war a bàyyi prisonniers jullit yi ñu woon yépp ñi bëgg a signé loolu mu xool ko gis ne prisonnier jullit yi lañ bëgg bàyyi mu ne leen déedéet yahudi ak nasaraan yi da ngeen leen ci boole parce que ahlu zimma lañu woon te dañoo nekkoon ci biir état islamique bi di dul seen jàmm kon man dikkuma fi di négocier pour ñu bàyyi ay jullit waaye jullit yi ak yahudi yi ak nasaraan yi ngeen di bàyyi bi ñu xamee ne caaxaanul te ab armée moo taxaw ci gannaawam ñu wëlbatiku signé loola mu dugg ci biir kaso yu génne jullit yi ak yahud yi ak nasaraan yi yëpp yëpp génnewaat leen ñu dil siwaat ci biir lislaam ñooñee la ca dugg ci lislaam dañuy wax ne kenn xamul nu mu toll te fekk ñooñu doonu woon ay jullit kon melokaan boobu mooy li nga xam ne moom lañ bëgg jullit yi delloo siwaat ko di ko dund euh, seen diggante nit ñi moo xam ay jullit lañ moo xam ñeneen lañ moo xam kuréel yi ahlu sunna lañ moo xam yeneen kuréel lañ ñu wan leen ne lislaam lislaam yi la waaye lislaam yi woote ci dëgg la ak mustaqim ak jëfe alquran ak sunna ak woote ci